kenn ku nekk daal di toog yor sa téléphone nekk ci Facebook bi wala nekk ci TikTok bi wala nekk ci WhatsApp bi au lieu nga waxtaan ak sa borom kër a wala nga waxtaan ak sa jabar kenn ku nekk ci téléphone am lay nekk manque de confiance bi nga xam ne moo am ci réseaux sociaux yi mara détail yi journal bi di réew mi quotidien nee na mbir la moo xamante ne mbir mu ñu war a waxtaane la ndax ma ngi def ay njombe ma ngi def ay dégâts yéen a kaay gi de la quotidien ñu xëy fekk fa njiitu réew mi di président Macky Sall ci nag juróom yi nga xam ne daat nañ leen di libéré ak lu man di am ak lu man di xew dinañu protéger li nga xam ne mooy forêt bi maanaam àll bi bi yéen a kaay gi di bés bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa Gambie li tax ñu daal bàyyi soldaar yi Gambie joué nañ ci bu am solo yéen a kaay gi di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu Abdoulaye Timbo daat nañu koy installé ci ville bu Pikine am na nag fukki conseil yu gëm sa bopp bu bugaan gi dañu yoo xam ne ni démb daat nañuy fekki Abdoulaye Timbo yéen a kaay gi di Les Échos Bamba Fall nee na nag njiitu réew mi di président Macky Sall moo ko woo mu daat dem ba tey daat nay wax ci lu jëm ci wàllum bi nee bi nga xam ne Macky Sall woo na ko Ababacar Sall ba mu génnee sa audience ba daan woo Bougane Gueye moom Bamba Fall nee na di président Macky moo ko woo ngir mu liggéey ak moom dem na nee na li ay waxi kasaw-kasaw la nee na je m'en moo ko intéressé yéen a kaay gi dalee foo nee Bamba Fall dem na fekk Macky Sall waaye nekk ab transhumant boo xamante ni daal mën na koo jural nag loraange yéen a kaay gi di Bamba Fall ma nga jege ñaale ma dañoo jàpp ne Bamba Fall da leen a wora trahison noonu ñu ko jàppee yéen kay gi di Le Quotidien nee na en tout cas Bamba Fall fi mu jaar bëri na Bamba Fall jaar na ci parti socialiste jugee na fa dem ci taxawu Sénégal jugee na fa dem ci gëm sa bopp ci ma ci benn bokk yaakaar journal bi xëy tënk kàddu yëpp ne Bamba partout yéen kay gi di Le Témoin xëy duñu xibaar naan ñu en ku ñu doon wërloo ab traître boo demee Médina boo gisee na nekk na fi nag ab tanuriste nekk na fi ab jufiste nekk na fi xalifiste jamono ji am makis la yéen a kaay gi di Les xibaar naan ñu Barthélémy Dias dañu ko war a ci ville bu Ndakaaru waaye nag daan invité njiitu réew mi di président Macky Sall journal bi nee na Barthélémy Dias dafa bëgg a jël benn poste adjoint au Bokk Yaakaar jël nag secrétaire élu jox président commission jox ko waa Bokk gis a kaay xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall mi nga xam ne mooy ronqi opposition bi kaay yi di amul lenn loo xam ne Macky Sall jàngee ko ci élection yi nga xam ne moom la ñu neema élection locale yi bëri ñoo xam ne dañoo transhumé woon waaye nag amul ñu Macky ne def ndax moom Idi Thiès gi nga xam ne moom fa dëkk dañu ko faa dóor ba maara détaal yi Moussa Sy dafa transhumé woon waaye nag xoolal parcelle Moussa Sy dañu ko faa dóor ba mu tëdd xoolal ki nga xam ne mooy Banda Diop maire bu Patte moom tin dafa transhumé ñu ko benn benn benn benn njariña ndax nag leader bi ci boppam mën naa transhumé waaye nag gars yi duñu ko toppo yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy ñu lu jëm ci wàllum révision liste électorale yi danañu ko fas yéene ubbi fan jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru mars yéen a kaay gi di bés bi nee na mbind mi léegi tey mu commencé yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu nag kasu bi nga xam ne moo nekk ca diwaanu Kaolack dafa am nag ay détenu yoo xam ne ñoo fa doon gerew gerewu xiifa la am ñett ñoo xam ne ñàkk ñu seen bakkana ñu njort ne gerew bi ñoo tax ñu daal di faatoo moo tax nag waa FRAPP jàpp ñoom Guy Marius Sagna di sàkku ñu indi ci ak leeraange yéene kaay gi di Dakar Times xëy dañu xibaar naan ñu relation bi nga xam ne moo dox diggante Afrique ak France ki nga xam ne mooy Emmanuel Macron dafa bëgg maanaam partenariat bi ñu xoolaat ko daal di koy tabaxaat yéene kaay gi nee na ASP yi ni ki démb doon nañu amal doxum ñaxtu sa Kolda ak ca Kaolack waaye nag dootu ñu ko dooleeti ay grenade lacrymogène la ñu leen dóor ñu bare bari teg nañu leen loxo am na tamit ñoo xam am nañu ay gaañu-gaañu ASP bëgg mooy seen situation ñu daal di koy xoolaat yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu mu doy doy waar a doy waar benn bijoutier bu tudd ndongo gi moom la ñu fekk cab otoom ñu daal di koy faat ca diwaanu Cambérène ca wetu Parcelles Assainies unité 15 fa la ñu ko fekk samedi ji nga xam ne moom la ñu génn maanaam dafa demoon nag fayee ku cëb xaalis ci benn client ma dellu si waatut ni ki démb la ñu ko gis nak fi nga xam ne mooy Cambérène cab otoom ñu daal di koy faat dugal ko ci ab saako yéen kaay gi de Libération nee na waa sûreté urbaine jamono ji ñoo yore enquête bi yéen kaay gi de l'Observateur nee na Macky Sall njiitul Union africaine daan nay déggante téléphone ak ki nga xam ne mooy Assimi Goïta bu Mali jamono ji ñoo ngi waxtaana ngir nag jafe-jafe yi nga xam ne moo amale ñu daal di koy lijjante yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu dafa am ku tudd Serigne Saliou Mbacké koo xam ne ni ki démb doon nañu ko atte ci tribunalum Dakar li ñu koy toppee dafa dëbb li njaa benn jigéen boo xam ne Maimouna Dieng la tudd maanaam lu jëm ci wàllum njabara si la Serigne Saliou Mbacké moomee nag fexe ba jël ci moom lu toll ci 10 millions procureur nee na nañu ko tëj lu toll si juróom benn wéri ba xolam